képp koo xam ne yaay nga rek nekk ci commune bi di nuyu ki nga xam ne tey li ñu fi dajale moom moo ko jiitee ci région bi muy MCD mu yabal fi tey ki nga xam ne mooy madame Touré di nuyu ki nga xam ne moom mooy mbiru santé tax ñu fee taxaw tey ndax mbir mi lépp ambulance bi moo ko waral dañ koy sant nag di ko gërëm ndax li tax ñu di ko sant mooy dafa tekk ay ministre yoo xam ne dañoo traduire li nga xam ne moom la tëggoon te traduction bi mu doon loo xam ne lu ne fàng la kenn du ko jeex kon maa ngi sant le ministre de la santé monsieur Ablaye Diouf saar ndax tey bu ñu jotee ci lu amee solo nii muy ambulance médicalisée zéro kilomètre doon loo xam ne nii mësul daw fenn ñii bi ñoo ko njëkk a jël mu ñëw ma di ci jiital ki nga xam ne moom mooy la premier magistrat de la ville muy monsieur le maire ndax nag tey lu fi mën di ñëw ci loxoom lay tegu waaye ñun dañuy def li ñu war li ñu war mooy lan yéen askan wi yéen ñu fal yéen nañu tànn yónni ñu ñu doon seen ay doom doon seen ay jaam te it nangu ko lool woyof ci tooyu fu ñu dem di sagoo dëkk bi di ko sagal ndax nag amuñ lu dul dëkk bi ba tax na ñun comme ñooy seen ay jaam du mujj gu rafet ba lépp lu dëkk am rek ñii bi am ko ba boo xamee ne incha allah rab yi bu son excellence monsieur le président de la république gagné réew mi incha allah ñii bi sera comme jam ñaajo war ngeen koo gëm su ma ko waxee ndax cin bu naree neex su baxee dafay xeeñ te yaakaar naa ne lii nii tey coolo rek la coolo dong la bu ngeen ñaanee te ànd xuppi ubbi seen bëri te yéen sa ubbi ngeen ko ndax ñii bi mës sa des ginnaaw ci lépp loo xam ne luy doxal réew mi la ma am nag ay ministère yoo xam ne dinaa leen sant tey ndax maa fa dem tàllal sama loxo laaj leen ñu jox ñu mu ñëw ma teg ko ci loxo monsieur le maire tey ci taxawaayu kii nga xam ne mooy le sous de de l'arrondissement de Gniby mu mën a ñëw tey law ba si ci yéen may gërëm le ministère de l'environnement tey monsieur Mounirou Sy moo ko teewal fii ma di la yóbbante ci monsieur le ministre de l'environnement Mame Thierno Dieng waa Gniby jot na ci lim leen jox mi ngi nii ñu teg ko fii ñëpp teg ci seen bët xam naa sous-préfet dina ci dugg duma dugg ci détails yi may gërëm tamit ki nga xam ne mooy le ministre de l'agriculture di ko jaarale ci DPV nga xam ne monsieur Coly moo ko jiitee te commencé wul tey rek ku ne xam ne ne dëkk bi man Amy Ndiaye ñii bi yàgg naa fee séddale puudar nit ñi di ci jot waaye mosuñoo am bis ñu di ko wane di ko feesal comme nii kon ministre de l'agriculture ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci jaarale gi mu ko jaarale ci DPV beneen bi ci des may sant ministre de l'hydraulique muy monsieur Mansour fay ndax ba ma ko diisee samay loxo samay samay soxla sama soxla du leen lu du soxla gox bi daf cee def li mu ci mën a def mu yëkkati ñaari kilomètre ci tiwo jox ma ko pour ñu jéem a jottali doole eggu fa beneen bi ci des may sant le ministre de l'enseignement supérieur di ko jaarale ci ki nga xam ne mooy euh, monsieur Cheikh Oumar Anne nee na ma am Ndiaye ñii bi ma ne ah mu ne ma may naa la ñaari chambre université dinaa la may ay ticket restaurant pour sa étudiants yi mënuma laa may lu la doy waaye dinaa la may loolu ma ne ko loolu kay baax na ndax mësuñu ko am kon yéen ñi nga xam ne yéen a yaay étudiants yi yéen ñi di papa étudiants yi ah loolu defal nañ ko ngeen te man mi nga xam ne seen doom laa ngeen ñaanal ma ma am wér mën a dem doxi uti dikk teg ci loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité dëkk bi su ko defee ñii bi mën a jëm ca kanam beneen bi ci des li ci des mooy lii ñu ñu jox tey dafa am solo sama xarit wax na ko moom mi fi teewal MCD nit buñ la joxee lu baax danga koy téye téewin bu am solo defar ko ni mu waree léegi loolu rek moo ci des su ngeen jotee ci ambulance bi nga xam ne maa ngi koy jox tey ki nga xam ne mooy la sous-préfet de la euh, de l'arrondissement de Gniby mu teg ko ci loxo ICP na ngeen ko téye téewin bu am solo parce que mbir bu ñu la ko joxee danga ko war a entretenir war koo téye téye bu am solo ba nga xam ne bu ëllëgee danañ ko mën a defar ndax nag man incha allah rabi du ma mës a tàyyi ci dëkk bi du ma ci mës a sonn du ma ma ci mës a yokkat du ma ci mës a déglu it kenn yéen daal maay seen doom maa ngi maay ki nga xam ne ci seen soxla lay xëy suba ba ngoon guddi ba bëccëg dangeen ñu ñaanal ci yàlla te ñaanal président de la république moom mi nga xam ne su ma demee tàllal ñi nga xam ne ñoom la doxalee sama diggante ak ñoom ñu jox ñu ngeen ñaanal ko yàlla may ko jàmm dalal réew mi def fi jàmm ba nga xam ne incha allah suñ demee ba nga xam ne euh, février 2019 dina gañe nga ñaay lu rafet lu am solo dès le premier tour incha allah nga ñaay lu leer nañ mu bañ a am benn laam-laame mu sedd guy loolu la ñuy ñaan maa ngi jël clé bi jox ko ki nga xam ne mooy le sous-préfet de l'arrondissement de Gniby mu teg ko ci loxo ki mu ko war a teg ñu jëmale affaire bi ci kanam parce que nag lii rek mooy li am solo ku am wér soo xëyee da nga jàngi comme ni ñu ko waxee ku am wér soo xëyee danga nga liggéey ku am wér di nga mën a fexe ba réew mi jëm ca kanam kon loolu moo am solo maa ngi nuyu ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm ñi nga xam ne ñooy chef de village yi fi toog te xam ne lépp loo xam ne nii tey am na fi ñun ñëpp ñoo koy bokkoo ñii bi du ñii bi rek waaye ñii bi ñii bi commune la euh, ñii bi euh, commune la ak ñaar fukki village ak benn yi nga xam ne ñoo ko wër te kenn ku ci nekk tey nit dikk fii teewal la fi di ñaan rek sëñ Bas mi nga xam ne moom moo fi ñëw tey doon sëri sëtu sëriñ Touba ak ñu baax ñi fi teew yëpp ñu dolli ñu ñaan te xam ne ñun amuñ lenn lu dul dëkk bi doxuñ lenn lu dul lu jëmale ci dëkk bi kanam na ngeen ñu ñaanal yàlla doolu ñoo may wér may ñu kàttan may ñu sutura te ambulance bi képp koo xam ne dugg nga ci doon ab malaat soo demee yàlla na nga ñibbiseeg jàmm yàlla na nga wér ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah jër ngeen jëf donc mu doon am si commité de santé bi te aussi ñu am si ay renseignement yoo xam ne dañ ñu koo wax mooy que ne ambulance bi mu paane l'honorable député moo jël moo ko jël en charge nim ko jëlee en charge mooy que ne yóbbu na ko pour ñu defar ko dina valeur de 700 000 francs donc loolu bu ko defee day rafet trop bu taxawee ci mbooloo mi ñu wax ko. am nañ ci ay firnde yu leer tamit ne ambulance bi lim nekkoon en panne yépp ku ci nekk ay jafe-jafe ñu war laa référer moom dina ko jël en charge ñu yóbbu la. wax nañu ne depuis mu nekk député ba léegi chaque mois dina leen jox cent litres de gasoil yoo xam ne daa leen koy jàppale ci seen poste de santé donc cent litres maa ngi jégalu donc cent litres la yoo xam ne à chaque fois da koy jox comité de santé bi mu la ñu teg ko foofu pour ku soxla ambulance yi booy dem doo am problème mu carburant liñ fi waxaat mooy que ne am na fi matériel assainissement boo xam ne mu ngi ñëw fii te dañ ne boo waxee santé da ngay ne assainissement wér-gu-yaram la ba léegi rek mooy que ne gis nañ fi ay brouette gis nañ fi ay poubelle gis nañ fi ay pelle gis nañ fi ay râteau pour dëkk bi gën a set donc loolu aussi dañ ko koy santé di ko gërëm tey wax ne donc population ñi bi bu ko tegee seen loxo tamit ñu xam nan lañ koy utiliser parce que donc yombul bi jógee si loolu tamit ñuy wax ne képp koo xam ne rek tey jii nii doomu waa ñii bi nga am na loo xam ne war nga koo xool si li nga xam ne tey jii nii moom moo fi am parce que dañ ne boo nekkee si dëkk am na loo xam ne wax dëgg yàlla war nga koo jëriñ si dëkk ba waxuñ na nag nit ñi dañoo yaafus parce que li ñu fi gis mooy que ne man bi ma fii doog a ñëw am na ambulance boo xam ne ay doomu réew mi ñu nekk Espagne ñoo ko fi indiwoon donc pour vous dire que ne waa ñibi doomu ñibi ak fu mu munti nekk xelam a ngi si ñibi boobu moo fi nekk ba tey jii donc lii ñëw fekk ko si kon dañ leen koy santé di leen ko gërëm lépp nag rek si politique bu président de la république parce que dafa mel ni da ngeen ko dégg année bii 2018 da koo def muy année sociale année sociale mooy année boo xam ne nii fépp foo leen xalaat ne néew doole am na fa képp ku yelloo ndimbal dañ ko war a dimbale donc honorable député yaakaar naa ne mu ngi si yoon boobu dañ ko koy sant di ko ko gërëm wax na fi léegi tamit si mbirum étudiant asalaamaaleykum man la Amy Ndiaye Gniby député du département de Kaffrine ah sant yàlla rek alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin dañuy sant rek di yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm suñu kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal fii yëpp ci gox bi euh, ndaje tey bi li ko waral mooy euh, ñii bi depuis 1960 ba léegi dafa am euh, loo xam ne mosuko am muy ambulance médicalisée tey yàlla def euh, ñu am ambulance médicalisée boo xam ne nii dañ ciy gërëm rek euh, euh, le président de la république son excellence monsieur Macky Sall di gërëm ki nga xam ne moom moo féetewu ci département boobu moom mi nga xam ne moo ñu ko yombalal mooy monsieur Ablaye Diouf saar mention spéciale pour monsieur ab boobu ñu bénéficié wu tey te population ñi population ñi yëpp bénéficié wu ci loolu waaw yeneen bagage aussi doon lu am solo muy euh, matériel d'assainissement moo ñu ko offrir muy ay poubelle lépp loo xam ne aajowu na ci assenissement pour cet mën a am banga xam ne wér mooy wane ne euh, santé dafa dafa liggéey en synergie ak l'environnement beneen bi ci des moom mooy euh, bénéficier wu nañ ci poudre poudre bi poudre phytosanitaire la pour li nga xam ne mooy récolte yi ndax macha allah ku ne xam na ne saalum mooy le grenier du Sénégal ñun ñooy bay li nga xam ne mooy dund réew mi kon ñun ñoo war a assurer sécurité alimentaire réew mi donc bu ñu jëlee ci ceeb boole ci wér ñooñu ñoo liggéey kon loolu dafa solo beneen ci des moom mooy li nga xam ne mooy la recherche mooy la ministre de l' enseignement supérieur monsieur Mary Teuw Niane beneen bi ci des mooy le ministre de l'hydraulique monsieur Mansour Faye moom tamit wax dëgg yàlla jox nañu 2 kilomètres euh, d' lépp rek dafa dafay tekk li nga xam ne mooy li nga xam ne le président son excellence monsieur Macky Sall tëgg muy mu dikk ci santé wér ak faju wér ak wérle beneen bi ci des dikk ci mbay agriculture et l'élevage beneen bi ci des dikk ci assainissement beneen bi ci des dikk ci euh, ressources humaines mooy recherche nit ñi am xamxam di ko jariñoo di ko jariñee donc loolu yëpp tey dafa lëkkaloo ba tey moo waral suñ journée bi nga xam ne moom lañ doon def tey mu doon lu am nag bu la yàlla dimbalee nit defal la ko da ko ciy gërëm kon ñoo ngi sant di gërëm monsieur le président de la république son excellence monsieur ak euh, département Kaffrine moodu moodu yi nga xam ne ñoom ñoo ñu utaloon ambulance ambulance ba nekkul woon ambulance médicalisée waaye fajal nañu soxla ba tàyyi fajal nañu soxla ba taay ba mu demee ba mu ba fan yële ci ginnaaw rek ñetti weer ci ginnaaw dafa tombe paan bi mu tombee paan man teelu ma ko woon yëg mais bi ma ko yëgee rek dama laajte lu ko ne mënuñ ko dépanner man ma ma dem ci ICP bi laaj ko mu expliqué ma ma dem ci sous-préfet laaj ko mu wax ma ma jël ko en charge yóbbu ko ci garage mécanicien mu defal ma devis ma fay ko 700000 francs pour dépanner ko boobu presque pare na parce que ci peinture lañ toll su ñëwee rek comme ñii bi nekkul benn dëkk rek dafa dafa polariser 21 village ak ñii bi muy 22 villages ñaari ambulance yi dina tane ci ñun dañ ciy sant yàlla ndax amuñu ko woon kon loolu dafa am solo